salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu bokk ci dib di leen dokkeel mu xam xam ne baax ko defee ñu ngi fi ci esplanade jumaa ji ngi waajal fi guddi gi nga xam ne moom la suñu tey incha allahu rabbi di ko ànd ak suñu bokk rawataaxi nii ci ndigal sëriñ bi mu mel ne kon liggéey bi niñ ko waajale woon ci dëgmal guddi gi di incha allah dafa mel ne cote na ndax buñ ko doon xayma ci wàllu tolluwaayu organisation bi ak communication bi ak culturel bi ak lépp loo xam ne daal daa tax liggéey bi yemm yooyu yëpp mel na ne buñ ko xoolee buñ ko doon xayma fi ne yaakaar naa ci nattu wala ñu mat pour cent kon mel na kon réussite bi moom jàpp na ñu ko jub cent pour cent incha allahu rabbi kon léegi ñaan mooy àgg ca ak jàmm su ko defee di xaar nit ñi rek ngir ñu mën a ñëw def si li nga xam ne moo leen tax a jóg te moo ñëw di dul fi guddi gi moo xam góor jigéen su ko defee ñu ñaan rek ñu gën a dolli dal gi bu jaxasee jàmm rek te xam ne barab la boo xam ni bara bu mat a bàyyi xel la waaye itam am nañu fi nekkitam kenn ku ne nekk la ko soxlaal. kon ñu ngi ñaan ku def daal rek mu bay tànqal morom ja su ko defee ñu jekkal toogaay yi ànd ak sàmm worma yi ba lépp yéwén ni ko baax lañ ko def incha allah bi muy ñetti kuréel yi ànd ak barsan bi boo ko defee si Ahmad Badawi mu Seex Ahmad Fadal nga xam ne moo jiital Rawdaahin xam ne moo jiital Muxaddamatul Xidma ak sëñ bi jatara ñooy seq barsan bi boo ko defee ànd ak kuréelu jës bu ak mu waay bu ak mu xaddimaat ba eh, yëpp mat incha allah rabbi bu defee sëñ bi daal fi teew ñaanal ñu incha allah ñu ngi ñaan suñu borom àggale koog jàmm ñi nga xam tam ñoo fi indi ay xeewal mu ay yoo xam ne ko def ko waajal ba mu jekk nii koo jëriñoo ni ñu ko waxee fan yëpp ñu ko yees daal rek di leen xamal ne képp koo xam ne indi nga dara daal mu xam ne xidma waajal na ay ndaw yoo xam ni képp ku fi ñëw loo indi dañ la ko ci nit ñi ñi ngi ñaan képp ku ñëw rek but ba nga duggee rek soo jokkoo ña fa nekk ñoom dañ orienté fa war yóbbu nga yóbbu ko incha allah dañ ko mën si la ci nit ñi ndax barab bii ñu nekk fi ne nañ xam ne dafa laaj ak nos kon nag su kenn ku ne jógee këram ñëw ba si li bopp la yor mën naa indi surux surux ba ñun ñëpp lañ bëggoon ko am te ñëpp lu leen tax a jóg mooy lu baax ñun ñëpp lu ñu tax a jóg mooy dundal. ndigal li kon nag nanga gën gaa def euh, defin ca mooy lépp rek ñu teg ko ci ndigal ci ak déggoo jàppale ak bokk taalibe yi nga xam ne ñoo leen fekk si barab bi ñu di leen gindi loolu moo moo fi bàyyi bokk yi fi nekk ñi fi nekk ci bokk leen fekkoon yi nga xam ne yéen lañ fi nekkal kon ñi ngi ñaan nag képp ku ñëw rek li fi leen jëmalee ngeen jëm foofa su ko defee góor ñi na ci kanam jigéen ñi ne ci ginnaaw góor ñi comme niñ ko baaxoo defee rek ci waxtu yëpp su ko defee tam esplanade bi nga xam tam mi ngi ci muy base bi nga xam ne ko def ci wetu kër Sëriñ Fallu ñoo tam ba ne ngir jigéen ñi rek ñoo fay nekk ñoo tam ginnaaw bu ñu fees le li nga xam ne mooy eh, wetu jumaa ji bu dee dañuy gën a foofu itam dolli ko fi ñu daan nekk nag ko xam ne ne day bëri jigéen lool kon ñu ko fàttali soxna yi baax baax ñoom itam nga xam ne kon daal moo xam ne kon waajal na lépp ba mu njëkk ci anam yi ma la wax yëpp rek